والقلم وما يسطرون yëkk day ñeme njam mën a njam mel ni koy mi ci gétt gi daal bëgg way fonk way mën a way ku ma sóoru ci way dinga nga jaal dond way dund way dunde way way bu deewee na ngeen ma ko jaal asalaamualeykum kon ku ma ñoppati nag ma ko baal waaleykum salaam. <laughs> bismillahi jox leen ma seen nopp xel yi ubbi seen yuur ma sadd way roof ci ab pip daaj ko bam riir jox leen ma seen noppi xel yi ubbi seen yuur ma sadd way roof ci ab pip daaj ko bam riir bàkkaat fi ndaanaan yu mag yi C3SA lu baax ci kër fii la jooree yaay suwaasiir ku bëgg taaralaat néegam mbaate ay salon décoré ko xeeti taabal nee fa bonjour ku bëgga taaralaat néegam mbaate ay salon décoré ko xeetu taabal ñee ca mën góor inox ak aluminium piir ñoo ca raw Europe moo xam ci vitre ak balcon nee fa bonjour bonjour sëñ say buntu daa màggatoon yow kaay soppi ko muy buntu saal buntu néeg ay palanteer am nañ fi ay porte garage ànd ak commande ak porte intérieur rek extérieur faire force rampe yu taaru boole ko wóor ku bëgg ay seng am na pour toiture <laughs> yow miy liggéey aluminium gi soxla ay outils mbir maa ngi ci c 3 fii lépp fii riir rideau yi yu yéemeeg accessoire machine yu gaarante yomb xeeti perceur rideau métallique yu yomb accessoire machine yu gaarante yomb ak xeeti perceur jàmbaar yu way farlu fas jom doomi dëkk bi nangoo liggéey fonk diine yutalaa biir c'est la yomb leen ñee ko yombal ñépp a ngi bége moo tax ba waa réew mi ñoom lañ farsuwaa siir yaraax la seen sees ba nekkee am na supprime pikin ba dem kër Masaar it ñoo defar mbuur ku dem Thiès ku dugg Thiès fekk leen fa Kaolack ak Louga ndargéej ba dem boori Tamba ak Ziguinchor tuuba ca korniis la féete am na xayra it bégloo na waa war a soogi ñoo rafet mboor am nañ place bu ñuy jaayee lépp luy pono ca sa prime seeti leen ko ak seen voiture société yi liggéey verre xeeti aluminium ci afrigu gu jant ñooy première fiable ak efficace ak profession qualité ak jëf ci xam-xam moo ko fal buur seen personnel baaka am yar yeewu neex deret ku dem fa ñoom daan la may nag baatalaa béer jigéen ña rekk romb nañu wif dëggi soldaar njàmbaar gu mat sëkk ànd ak jom jawoon ndeer technique bu rax xeeti ci taqe xippil sa xool ci kaw gis lii ñu décor technique bu raxee te tactique taqe ci taqe xippil sa bët xool ci kaw gis li ñu décor amul fa siin yong du Hong Kong doo ko gis Sowét wëral ba dem réewi Baxdaad tukki leen keer C3S seen maas ci xam-xam la buur bi sàkkuloon ñaar mooy ndox ma woon nee ko est-ce que jinne ciy weer ñoo dekkalaat mbindi soosaat daayi sot xalim tax fóore yii bopp tax fóore yii tax fóore yaa ngi di bopp sóoratu tuur ñoo dekkalaat mbind soosaat daayu sot xalim tax fóore yaa ngi di bopp sóoratu tuur xaraf yi bég nañ ci yoon lool maska yi gërëm Ousmane ma xàlli woon ngir mi jox na seen biir sa njëmb ak xaami dunloo ñoo ngi nii taxaw di waaj jox gaa yi fii suukaru skoor xuraan la seex bàmba tànnoon daa ko bindulu xuraan la seex bàmba fonkoon def ko doktoor soppeem ba féeteem ba waayam wéeru waayam fal ngeen la Seex Bàmba jàppe doon trésor soppeem ba féeteem ba waayam wéeruwaayam fal ngeen la Seex Bàmba jàppee woon trésor na yàlla bul taw yi mbur yokk nuy ngërëm xéewal yu way xéewal yu rey may yu baawaan barke ak muur kii soppi seen jaaxle mbég seetura esa mooy jeeg bu jar ñëpp koy wër fii ba Linguère ki soppi seen jaaxle mbégte seetura esa saa géntu daaw jégga ren la may leer asalaamaaleykum jërëjëf jërëjëf waaleykum salaam waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu anta bi ni'mati rabbika bi majnun